waaw euh, maman xanaa rek fi ñuy mujjee mooy euh, bés bu rëy bi nga xam ne ni ñu ngi ko dëgmal la 5 novembre bi ci arène nationale. Euh, dafa mel ni moo Ama Balde def na open press am ni ki dem tey jii la Modou Lo def open press am. combat bi ñu dëgmal ko ñu bëggoon rek comme ni nga ko daan defee. nga wax ñu ci lu ñu mën a jàpp ci diggante ñaar ñooñu. Ah, di wax ne rek seetkat baa ngi nii. seetkat bi fi waxoon Balla gay day nekk roi des arènes ba muy dëgg man selbendoom seetkat bi fi wax ne Ablaye Wade day génn Macky sàll moo ciy topp ba muy dëgg seetkat bi fi wax tafaatin ak Bombardier ne leen deret dina tuuru ba muy dëgg ak leneen ak leneen diggante Ama Baldé nag ak Modou Lo boo xam ne ñeenti at ñu ngi koy nas lit Nicolaay waroon a def sarax keroog dégg naa mu ne ba mu bëggee mu am am na lu mu def mu ne combat de choc combat de choc la combat bu metti lay doon combat boo xam ne kenn ku ci nekk na ci xaar lépp man nag ci kàttanu yàlla suba ci guddi li ma ci gis moom laa koy wax mais combat bu metti lay doon te combat bu am coow lay doon coow bi moom tey jii tey jii tey jii la génn ci wàll Modou Lo moom Mm. waaw waaw waaw maa ngi préparé ñëw léegi dem jëndi li ma war a sarax mais combat la boo xam ne ah doy na waar combat bii ah di ñaan supporters yi ngi def ndànk parce que combat bi du yomb sooy xool combat Tapha ak euh, Eumeu Sène dina métti combat Siteu ak la de maanaam dina neex mais combat bii coow da cee commencé dugg démb ci guddi waa coow lu bees tàq da ci commencé dugg man Selbé Ndom maa ko wax a ah, gis naa nag mbër mi nga xam ne moom la ñu takkal morso bu vert bi morso bu vert bi nga xam ne comme couleuru barabu Seydina Mohamed vert boobu la am ay brillant ci kaw te wax nañ ma waa ji wax nañ ma ay diw wax nañ ma te man sama gis-gis du fo ndax lii ma yàlla may lu ma sama borom may la nekkul loo xam ne damaa dem jàngi seet wala may jàngi gis lu ma judduwaale la moo tax sama papa fukki doom ak ñeent yi mu am man la ci gënoon a fonk maa koy wax papa lii mooy am mu am mais combat bii na ñëpp def ndànk muy sëriñ seeg muy seetkat yeeg nañ def ndànk parce que tension dina ci am ah bu nekkee combat bi dina am amul coow parce que nee naa leen tey gis naa ci coow bii ci guddi tey bi ma yeewoo maa ngi nii su ma paree ci yéen damay dem jëndi la ma war a saraxe man ci wàllu coow li ah parce que combat bi moom combat bu dangereux la. kan lañu ñu takkal morceau bu verte bi. waa su ma la ko waxee da ngay xam kii daan kii ñu takkal morceau bu verte bi xanaa yoo xamoo ma média def naa ci 15 ans ba dugg 16 ans maa la ci jiitu maanaam sunu borom may na ma xel. mënumaa taxaw ne la diw lañ takkal kon kay naa la wax ne diw moo am moo mooy am ndam li papa nga la da yaakaar ne séeréer bi dof la ñoom ñaar gis naa leen kenn ki daa toog kenn ki daa toog découragé samp tànk yi toog di ju découragé te loolu may wax duma ci arrière li may xalaat kay mooy combat bi yàqu loolu laa ragal ndax li ma ci gis tey jii coow lu bees li ma ci gis tey te loolu coow la faaw ñu def ndànk na ñaari camp yëpp def ndànk mais benn camp bi ah dina am coow de. kon daal su ma la déggee bu coow loolu amul rek. ndam li moom dèjà am na fu mu féete coow li dinaa dinaa dina dinaa dinaa saraxe la ma ci gis léegi su ma paree ak yéen nii damay génn jël numéro ba loolu ma jënd ko saraxe ko ndax ma it ginnaaw suñu borom def na duggaat naa ci làmb di ci gërëm moom freer baay Ndiaye sama rakki bopp ji. ki ma bokkal ndey ak baay xuj a jóob di sunu yaay baay aale njaay di sama baay ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sama waajur baay cheikh ndoom mii sama baay baay ale mooy sama baay yàlla moo def ma bëgg baay aale bu yàgg ndax signature ama balde ama neex ñoo toogandoon nii ak wëli njaay wëli njaay c'est te xuj a jóob néegu yaa xuj a jóob laa xam mère xuja daf maa xàmmee sax kon maak ñoom ñoo bokk ndey ak baay baay njaay lépp lu mu dugal loxoom Aziz Ndiaye lépp lu mu dugal loxoom damay nekk seen ginnaaw waaye duma nekk seen kanam mukk lépp lu leen di yàqal ku leen di yàqal puus ma dara gee Seydina Mohamed lépp loo xam ne day yàqal Baye njaay yàqal Aziz Ndiaye Eliman Lam na ma dandu ndax dañ di may frère xëy na nag rus naa Elimane Lam torop ba mënuma koo woo di ko sonal sunu borom def na loolu waaye lu ma soxla rek Baye Ndiaye laay wax wala ma woo Aziz waaw te Aziz mooy Baye boo jotee Baye mel nga jot nga Aziz te bàyyi dafa nekk sama rakk ju sës ci man rek c'est moom frère maa ko bëgg sama biir xol depuis ma ko gisee ca Balla Gaye ba muy bëre kooka mu ànd ak Elimane Lam sama kër jour bañ ma njëkkee gis ci la ma Elimane may envol kii euh, fiñal chèque banque waa fukki junneeg juróom boobu awma frigo mu ne ma dolli ci jënd frigo ilimaan laa moom ma njëkk a jox xaalis frigo li tax nag duma ko woo man maa munewul noonu Baye Ndiaye laa gën a yeb ci moom <laughs> Baye Ndiaye laa gën a yeb ci asis ah mais ñoom lépp luñ dugg rek damay nekk ci ginnaaw lit Nicolas nag dafa yéex a def lii waroon naa xëcc Aziz bu yàgg waroon naa xëcc Baye Ndiaye bu yàgg ni kon heure bi waxatuñ ko di leen ñaanal seen ànd yàgg bu baax réussite totale mais làmb ji moom ah gis naa kiñ takkal morceau bu verte bi de waaw bu verte bii bi ñu def ci barabu yonent bi gis naa kuñ ko takkal mu am ay biriyaa bopp bañ ko takk am ndel la wala bopp bu am karaw yow maa la mag munoo maa <laughs> eh, munoo maa wax loo munoo ko incha allah suba ci guddi boo fi ñëwee dinaa la ko wax suba daa maa am fu may dem moo tax bu duma loolu tey jii laa ko naan teel mais dama war a génn te ma war a jëm maanaam euh, war naa dugg euh, euh, biir dakaar waaw war naa dafa am yu may dox dañ ma jox rendez-vous ajjuma lañ ma wax ajjuma war naa am ñaari yoon yu ma war a dem maanaam moo tax mais suba ci guddi guddi ci kattanu yàlla walla ginnaaw suba ci suba si damay teel a yeewu joxe li ma gis ci kàttanu yàlla nag Selbé toujours fa laay waxee waxuma lu àndul ak yàlla Selbé xërëmul selbe deful dara laa ilaha illallahu muhammadu rasulaay moo nekk sama xol bii sama yaram wii poojub càmbar bi am bindi alxuraan ma mën a toog fekkew ma jamonoy Serigne Touba lu ci seexul Khadim mu nangul ma sama taalibe ma mën a wax ak wàllu yi nga xam ne yàlla mi ngi leen fi def muy sëñ Moustapha si ñu bëggal ma seen bopp kon am na lu nekk ci Selbé ñële nga xam ne dañoo dem xam nga léegi nee naa la maam Baye Niass fekkaw ma génération te bu Seydina Mouhamed jaaree nii boo gestoo gis maam Baye Niass mu topp ci wetam dem naa Màkka gis fa sëriñ Touba ci abiyon bi laa ko njëkk a gisee dem Medine def fa ñetti fan gis fa Serigne Touba sama mujjantalu aj bi ñu ajee jour boobu. sëñ Tuubaa ñëw na leeru yàlla mooy leeru jant bi bés bu ñu waxtaanee ci kilifa yi nga xam ne lépp dëgg la lu ma yàlla may la li ma jàng mooy togg ceebu bu jën ba mu neex def suppu kànje bu am jom mbaxalu saalum maa gerte yooyu laa jàng léttit bu ma la léttee nga naan kii wéru crochet dama ko mën mais yàlla bu décidé yow dangay ñàkk moo tax lii bañ ma ko joxee ñeenti pettaaw ma mën la cee wax loo xam ne du dëñ waaye sama gis-gis du fo làmb ji nag damay ragal mu yàqu ci benn côté bi gis naa ci lu doy waar coow dina ci am waaye a ah, ñoom ñaari mbër yi nañ ñu dimbale rek ndax euh, làmb ji lu ñu yàgg waaj la te promoteur bi sonn na ci ba dugal ci ñeneen ñoo xam ne am nañu wàll ci réew mi am nañu wàll ci Cheikh Ahmada Tijani am nañu wàll ci ci tariqa murid yeeg lépp yàlla def na àdduna bi bëgg nañ leen te la ñuy yore ñu ngi koy bokk ak doomu aadama yi kon maanaam ñaari camp yëpp ñu ngi ñaan naa leen ak dal supporters yi ñaan naa leen dal ba làmb ji egg ci bismi commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin